bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa asxaabihi sawi ridwan wa tamkin amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak ci waxtu bu tedd wi ci barab bu tedd bi ñu nekk leen balu àq te di leen baal àq di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu bàyyi lu fi sunu kilifa gu tedd gi nekk ci sunu kanam mu gën fee yàgg lool te may ko wér-gi-yaram ak tawfiq ba mu àggale yéeneem ci diini ji ak ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom sunu tomb tey bi ñuy waxtaanee waxtaane woon nañ ko fi ay yoon wala ci ay jamono waaye am solo gu am solo ak tasaaroo gu mu tasaaroo ci biir xeet wi ak ay yàq yu baree baree bare yu mën a yàq yàq ko ci nit ki yàq ko ci société bi muy dund moo tax ñu di ko baamuwaat di ko fàttaliwaat nit ñi ngir ñu mën a fegu ay lorom te wattadi ko ko xam nañ ne sunu borom toog rek tomb boobu nag mooy tooñ ak ay jeexitam ci nit ñi xam nañ ne sunu borom tabaraka wa taala moo bind doomu aadama waral ko ay wërteef yoo xam ne daf ko war a jooxee ci moroomi jaamam yi waaye it jox ko ay àq yoo xam ne moroomi jaamam yi dañ koo war a jooxee ci moom su jooxewut loolee ko war nag muy ay waajibaatam dañuy wax ne kon tooñ na waaye su fekkee dafa jël àqi keneen daf ko ko xañ wala mu tere ko ko moom it dañuy wax ne tooñ na kon tooñ mooy ñàkk def li la war walla jël àqi keneen wala tere ko mu am ko muy nag jafe-jafe bu rëy boo xam ne yàgg na ci doomu aadama ni doomu aadama yàggee rek yàlla sunu borom tabaraka wa taala dafa mel ni ba mu ko wàccee rek la ko wàccee wàccaale mu ànd ak tooñ mooy ab tooñkat inna al lu la zalumun kafaar buñ ko seetloo sunu maam aadama bi nga xam ne moom la yàlla njëkk a bind ba mu ko bindee mook sunu maam awaa rek la leen génn àjjana jañ dëkkaloon lu dara lu may tooñ rek moo leen fa génne wa is qulnaa yaa aadamu skun wa is qulnaa yaa aadamu skun anta wa zawjuka aljanna wa kulaa minha raxadan aysu shituma shajara fa takuuna min alzaalimin kon tooñ moo génne adama ak awa ci àjjana ju neex jooje ñu nekkoon wàcc leen ci suuf si ak coono yi bari yi kon tooñ yàgg na ak doomu adama taxoo ak moom mboolem yónnent yi nga xam ne ñoom la yàlla yónni la ci aadama moomu ba ci sunu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa li tax mu yónni leen lépp nee na mooy ñu ñu ñu wasaare fi maandu te jëlee fi ak tooñ wa laqad arsalna rusulana bil bayyinaati wa anzalna maahum al kitaab kitaaba wal mizaan li yaquuma bil qist wasaare ak maandu ak dindi fi ak tooñ loolu mooy sababu sunu borom tabaaraka wa taala yónni yónnent yépp yebal leen ci bindéef fi ci tooñ lañ gis ne yàlla sunu borom tabaaraka taala faagaagal na ci ay dëkk ak i réew ak i xeet yoo xam ne dañ fee nekkoon di tooñ sunu borom tabaaraka taala la leen faagaagal alak leen bañ tam la alak leen ba ñu jeex takk dara desatu fa fa kullan axadna bi dambihi fa minhum man arsalna alayhi xaasiban wa minhum man axasathu sayxa wa minhum man xasafna bihi ard wa minhum man agraqna wa ma kaana allahu li yadlimahum walakin kaanu anfusahum yadlimuun sunu borom tabaraka taala mii ne am na ay ay dëkk am na ay réew am na ay xeet yu bari yoo xam ne faagaagal neel bawu fa dara ñii ma sànni leen ngelaw lu lu metti mu faagaagal leen ñii ma yuuxuloo malaaka mu yuuxu ñoom ñëpp ñu daal di alku ñii ma wëlbati suuf si ci seen kaw ñii ma labal leen te ñëpp la tax loola am du dara lu may tooñ goo xam ne tooñ nañ ko suñu borom tabaraka taala ñi ngi koy tooñañ ci seen diggante wa ma kaana allahu li yazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimuun nee na it alak naa ay dëkk yu bari alak naa ay dëkk yu bari ba ba ñu jeex te dara war lu ko lu may tooñ tooñ guñ ma tooñ rek wala tooñ guñ tooñ tooñante ci seen biir wa tilka alqura ahlaknaahum lamma zalamu wa jaalnaa li mahlakihim mawida fa ka ayin min qaryatin ahlaknaaha wa hiya zaalima kon dëkk yu bari ak xeet yu bari sunu borom alak na leen faagaagal na leen te dara waralu ko lu may tooñ gu ñuy tooñ sunu borom wala tooñ gu ñuy tooñante ci seen seen diggante ngir lor lu bari yooyu nga xam ne moo ne ci tooñ nag ak ya cay mujj ya nga xam ne moom lay jur ci àdduna ak ci alaxira moo tax sunu borom tabaraka wa taala moom araamal ko ci boppam ne man du ma tooñ kenn waaye it ni ma ko araamalee ci sama bopp laa ko araamalee ci seen diggante bu leen tooñante ci seen diggante yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi fala wa jaaltuhu baynakum xaraaman fala tazalamu bu man du ma tooñ te araamal naa ci yéen ngeen tooñante ci seen diggante yéen tam araamal na ko ci boppam ndax moom dafa maandu mooy aadalul aadiliin mooy axkamul xaakimiin wa ma rabbuka bi zallaamin lil abid wala yazlimu rabbuka ahada yàlla nee na man du ma tooñ kenn du ma tooñ jaami ndax ku maandu laa araamal na ko ci seen diggante ngir ñu wattu seen diine ngir ñu wattu seen àdduna ngir ñu defar seen alaxira jooxee àq yi nga xam ne moo leen wat ci seen moroom seen yàlla seen diggante ak yàlla waaye moo leen wat ci seen diggante ak seeni moroom jooxee ko joxe goo xam ne day mat sëkk te dara du ca wàññi ko kon loolu mooy tooñ mu rëy lool ba jaral sunu borom tabaraka wa taala mu alak ay nit ay mbooloo ay peuple yu bari mu alak leen waxuma la ay nit nit nit ci benn benn alag na leen ci tooñ ay xeet yu bari alag na leen ci tooñ ngir rëy gu mu rëy fa moom ak eh, ñaawal gu mu ko ñaawal bu ñu xoolee nag dañ gis na tooñ li muy bari bari mën nañ koo tënk ci ñetti wàll rek ñetti façon tooñ bu njëkk bi mooy tooñ sa borom tooñ ñu ñaareel bi mooy tooñ sa bopp tooñu ñetteel bi mooy tooñ sa moromum jaam ñetti tooñ yooyu rek tooñ yépp mën naa dugg ci biir tooñ sa boroom tooñ sa bopp tooñ sa moromi jàmm tooñ sa boroom moom ba ca gën a rëy mooy al ishraaku billah mooy tooñ tooñ yàlla bokkaale yàlla mun weesu ak tooñ bokkaale yàlla ci lim jagoo moom rekk ko moom siqu ko kenn nga fab ca dara jox ko kenn ku ko def rek tooñ nga sunu borom tabaraka wa taala tooñ nga tooñ gu tooñ gu rëy rëy rëy yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim luqmaan sayyidina luqmaan loolu la waxoon doomam yi ne ko bul bokkaale yàlla ndax bokkaale ak yàlla kat tooñ gu réy la ndax yàlla ni mu toll lim moom siq ko kenn bukk ko kenn nga jël ci dara jox ko keneen boobaa nag tooñ nga ko ndax ka ko jox yayoowu ko te yàlla moo ko yayoo ndax tooñ mooy jël loo lu nit moomut nga jox ko nga jox ko keneen ku ko moom loolu rek mooy tooñ kon ku bokkale yàlla mel na ni tooñ nga tooñ gu rëy rëy moom tooñ googu nag rëy gim rëy moo tax ku ku mu dal day mel ni moom dañ laa génn ci lislaam yi ak kéefër lañ lay lañ lay askane te day dangay sax ci sawara ba faw soo ko tuubul bokkale yàlla innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna wa mawaahu naaru wa ma zalimin min ansaar nee na it bokk na ci tooñ yàlla mooy ngay ñaawal diine ngay ñaawal diine di ñaawal nit nit yonent yàlla yi wala di ñaawal téere téere yàlla yi wala nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom la yàlla may ñëpp nga leen di ñaawal di leen reetaan loolu lépp bokk na ci ak tooñ koo xam ne suñu borom taw taw daf ne nañ ko wattandiku ndax mën naa indi ak bokkaale wa in saaltahum la na innama kunna naxuudu wa nalab qul abillahi wa ayaatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laa taatasiru qad kafartum bada imaanikum ña doon yëjju yëjju yëjju yàlla yi di ji di yàlla yi ay téeréem sunu borom nee na xat kafartum baada imaanikum ba ngeen ko defee ba noppi nag defee ne defu leen dara waaye xamal naa leen ne yéen kéefër ngeen ay yéefër ngeen xat kafartum baada imaanikum kon loolu mooy tooñ tooñ sunu borom tabaraka wa beneen tooñ ba ca des mooy tooñ sa bopp nit ki dana tooñ boppam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 nga Muhammadur Rasulullah leen ko weesu nga jéggi foofa weesu ko ba def lu la yàlla tere loolu tooñ sa bopp lañ koy tuddee ndax day mel ni yàlla nga tooñ waaye yàlla moom kenn mënu ko tooñ ndax tooñ yi wàññiwu ko dara jaamu yi jëriñu ko dara kon ku ku mooy yàlla sa bopp nga tooñ fi yàlla yemlu ku ko jéggi sa bopp nga tooñ wa man yataadda xuduud allahi fa ulaika hum zaalimuun gis nañ sëñ Tubaa ca xasida ya muy wax ne man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abaada wa zalam tooñ sa bopp tooñ sa bopp nit dana tooñ boppam ci mooy yàlla fi mu yamlu yemoo fa nga jéggi ko kooku day mel ni sa bopp nga tooñ ndax la cay juddoo ci yow lay delluwaat waaye tooñ tooñante ci suñu diggante nag bindee fi tooñante ci seen diggante mooy nag tooñ gi gën a diis ñetti tooñ yëpp yëpp rëy na waaye gii nag mooy gi gën a diis ndax tooñ yàlla moom boo ko defee day mel ni yàlla yàlla moom mën na la jéggal loo ko tooñ mën na la ko jéggal sa bopp it boo ko tooñee boo jégguloo ba tuub sunu borom tabaraka taala jéggal la waaye nit ñi nag boo leen tooñee moom fayonte rek moo fiy sës fayoonte rek nit ñi moom koo tooñ jël àqam da nga koy delloo àqam loolu moo la ko mooy mooy tax mu nga mucc ci am na benn borom diisu yàlla ku mag ku ñuy wax Sufyaan Sufyaan as-Sawri nee na ma dajeek yàlla ànd ak juróom-ñaar fukki bàkkaar yoo xam ne sama digganteeg yàlla la ma tooñ ko yàlla moo ma gënal ma dajeeg yàlla ci benn tooñ goo xam ne tooñ naa ko sama moromam bi def ndax juróom-ñaar fukki bàkkaar li muy réy réy yépp sunu borom koo jéggal moom boo ko tuubee mu jéggal la ko waaye juróom benn bàkkaar bii nga tooñ sa moromam jaam nag soo ko jéggalu su la bu yomal xiyamee da nga ko koy fay te foofa fayante bu métti moo fay am tooñ nag jaam nag dana nekk ci tooñ ko ci ay wax waaye dana nekk tooñ ko ci ay jëf tooñ ko ci ay wax mën na mën nañ ko askane ci di di di yàq ab deram ci jëw wala ngay jatambaaj wala nga di ko xas wala nga di ko saaga wala nga di ko reetaan wala nga di ko yëjju wala nga di ngay teg ci ab deram loo xam ne di ko tuumaal di ko tuumaal ay tuuma yu ñaaw yooyu yëpp bokk na ci tooñ gi nga xam ne ay tooñ ay ay wax lay doon te suñu borom tabaraka wa taala dañu ko tere lu baree bari ci alquran yooyu yëpp suñu borom tere nañu ko yaa ayyuha alladina amanu laa yasxar xawmun min xawmin asa an yakunu xayra minhum wala nisaun min nisaihin asa an yakunna xayra minhunna wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil algaab yooyu yëpp ay façon tooñ la yoo xam ne di wax nit ñi wax ju bon wala ngay wax ci sa làmmiñ génn ci sa làmmiñ loo xam ne euh, rusul naa génn yooyu yëpp suñu borom tabaraka wa taala daf nu ko tere jëw sunu borom daf nu ko tere wala yaxtab baadukum baadan ay yuhibbu ahadukum ay yakula laxma axihi mayita kon yooyu yëpp ay tooñ la yoo xam ne ci ay wax lay doon ci làmmiñ lay génnee waaye am na yoo xam ne jëf la ba ci gën a rëy mooy tooñ nit ki ci deretam tuur deretam wala nga gaañ ko tuur deretam wala nga gaañ ko wala taqtulu nafs allati xarama allahu illa bil xaq sunu borom tabaraka wa taala daf ko araamal tuur bakkanu doomu aadama boo xam ne tuuroo ko ci yoon tuuroo ko ci dëgg suñu borom tabaraka wa taala daf ko araamal te boole ci sànji bu rëy rëy wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannam nee na ku ko def te tey ko ku ko def te tey ko sa pay du doon dara lu dul sawara yowmal xiyaam ñam ci yàlla musal beneen tooñ ba ci des mooy nga nga nga nga gaañ nit ci yaramam nga laal dara ci yaramam jam ko wala nga eh, sànni ko wala nga dóor ko wala nga def ko lu mu mën a doon ku ko def tooñ nga doomu aadama te suñu borom ta eh, su yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yowmal xiyaam li ñuy njëkk a atte mooy tooñante gi ñuy ñu tooñante ci seeni deret ak ci seeni jëmm yooyu la yàlla njëkk a atte balaa atte dara awwalu maa yuqdaa bayna naas yowmal qiyaama fi dima am na tooñ goo xam ne ci alal lay nekk nit dana tooñ nit ci alalam mu al tooñ ci alal nag mën naa nekk alal joo xam ne nit a ko moom kenn képp moo ko moom loolu bokk na ci lekk alali jirim alali jirim nga xam ne baayam daa dem bàyyee ko alal nga fab alal ji yow ma ko eh, di ko di lekk alal joojee loolu lu rëy lu tar loo xam ne suñu borom tabaraka taala digg na ci yu rëy rëy rëy rëy tëkku na ci inna alladina yaakuluuna amwaal al yataama zulma innama yaakuluuna fi sa yasluuna saira ak jël alal yi nit sàcc ñuy wax sàcc rek wa saariqu wa saariqatu faqtahu aydiyahuma jazaan ma kasaba nakaala min allah suñu borom da ko araamal jël alal yi koo liggéeyloo ba noppi mu liggéeyal la lam la war a liggéeyal te fayuloo ko loolu nag tasaaroo lool digganteeg nit ab liggéey moo xam bu mën a doon mu liggéey ko ba mat te mataloo fay ga nag yow la nga ko yoral nag joxoo ko ko wala nga wàññi ko mu yaatu lool te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loolu lu rëy la yowmal xiyaam sunu borom tabaraka wa taala day taxaw yowmal xiyaam ne nee na ñett nii ñoo xam ne maa leen di layal ëllëg ñañ joteel dama leen di wax taxaw taxaw leen fële ma xulool leen maa doon seen avocat ëllëg mu ñu ne kan mu ne nit koo xam ne dafa wor dafa joxe dafa joxe kóllëre ci yàlla teg ko ci yàlla ne daan daan digganteeg nit loo xam ne danga ko da ngaa teg diggante yàlla sa digganteek moom nga wor ko nag wor moo xam wor ci wax la moo xam wor ci jëf la lépp lu mu ci mën a doon rek su yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu yowmal qiyaamee maa koy layoon ak waa joo xam ne dafa liggéeyloo nit mu liggéeyal ko ba liggéey ba mat te joxu ko àqam delloowu ko ak xam nee na kooku it maa koy xulool yow yow yowmal xiyaam kon liggéeyloo nit te fayoo ko te loolu bari na lool wala sax nga liggéeyloo ko di ko fay waaye la nga koy fay xam nga ne ñàkk pexe tax mu di ko def xam nga ne kii ngay liggéeyloo mu lay liggéeyal la nga ko waroon a fay xam nga yow ci sa bopp ne la nga ko waroon a fay fayoo ko ko daa ñàkk pexe rek rawatina jamono métti yi nga xam ne liggéey da cee néew ñu ñu baree bari jël ay nit di leen liggéeyloo di leen fay ay fay yoo xam ne ku ne xam na ne ñàkk pexe moo leen ca moo leen ca moo leen ca dugal atil ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu wala nga tooñ nit ci suufam te loolu da bari na lool ci réew mi boo toll yaa ngi dégg ay coow yu am yu bari yoo xam ne xëccoo ci suuf lay doon kii naan maa moom kaa naan maa moom ña am doole jël not ña amul doole jël seeni suuf te duñ leen du leen jox seeni àq te yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu da ko réyal lool man aqasa min al ardi shay'an bi xayri xaqihi qusifa bihi yawma alqiyamati ila sabi képp ku ko def suñu borom tawkatal dana sànni ci yowmal xiyaam lu toll ni juróom-ñaari suuf nga nga lu lu soree nii juróom-ñaari suuf nga mu sànni la ko kon loolu it war nañ ko wattandiku bu baax a baax ba ci des mooy lekk alali ja alali alali alali mbooloo mi alali mbooloo mi alal ji nga xam ne ñëpp a ko moom kenn moomu ko ñëpp a ko moom képp koo xam ne yaa ngi koy lekk yaa ngi koy lekk ci rachwa muy muy muy muy muy corruption wala ngay di ko lekk ci jël loo xam ne ñëpp a ko moom nga jaawale sa poos Euh, euh, alal poos poos mbooloo bi képp koo ko def su borom tabaaraka digg na la lu rëy rëy rëy yowmal qiyaam wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil wa tudlu bi al xukaam laana allahu raashi wal murtashi man ghashana fa laysa minna yooyu yëpp ay façon mbir la yoo xam ne dañ ciy jaar ba lekk yi nit ñi ci loo xam ne du dëgg loo xam ne ci ay nen lay doon waaye yonent bi sallallahu ak sunu borom tabaaraka wa taala digg na ci loolu ay yëf yu baree baree bare al xaluul xuluul ñi nga xam ne dañ koy def di fab alali mbooloo mi ñu dénk la alali mbooloo loo xam ne ci mbooloo mi la war a dem nga nga jël ca wala nga jël lépp def ko ci sa poche wala nga def ko jëriñu say say mbiri bopp looloon suñu borom tabaata réyal la ko wa man yaxlul yaati bi maa xalla yowmal qiyaama képp ku jël ci alali mbooloo mi la nga jël suñu borom tabaaraka wa taala dana la koy yenn yowmal qiyaama ngay jong jongee ak moom ñëpp di la séen xam ne yow mii alali mbooloo mii moom nga yoroon di ci di ci di di ci jëriñu kon dereti nit ak alalam akub deram lépp sunu borom tabaraka wa taala daf ko araamal kullul muslimi alal muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irduhu léegi li ci li ci li ci mujj nag mooy ki tooñ nag wala ñiiñ tooñ mën a tooñ ci boppam lan mooy ay loram nit bu ko defee lan la koy lor la ci njëkk mooy tooñ ki ko def day fallas yowmal xiyaam maanaam bu yowmal xiyaamee aji tooñ ji du dese dara day perte du dese dara ndax yonent bi sallallahu laajoon na ne ku ngeen kuy ku ngeen jàpp ne moo perte ñu ne ko ku amul dërëm amul bagage amul dara mooy leen déedéet ku ci sama xeet wi de mooy koo xam ne am na ay yool yu bari ci ay julleem ak i wooram ak i asakaam jëfam yu baax yépp mu am ci yàlla fay ko ci yu baree baree baree bare bari waaye loolee la muy bari bari nag jàpputoon aw làmmiñam xasoon na kee saaga woon na kee tour de dereti kee dóor na kële tooñ na ku ne tooñ na la bu yomal xiyaamee nee na nañ koy fayee mooy dañuy jël ay yiwam yooyee mu amoon ci julleem yooyee ak wooram yooyee di ko fayee ñooñee mu tooñoon su su yëm yiwam ya jeexee te seen àq ya jeexut ñu fab ci seeni ñaawteef ñoom di la ko jal di la ko jal ba ba fees dell ñu boole la ak moom tabal sawara kon loolu lu mat a wattandiku la àqi doomu aadama lu mat a wattandiku la te nit ñi woyofal nañ ko lool waaw beneen ba ci des mooy tooñ ay lëndëm lay doon yomal xiyaam te ku ne xam ne ne lëndëm yomal xiyaam màndargam texe di la ay lëndëm nit ku ne ciy lëndëm yomal xiyaam ku fa texee da ngay ne leer waaye ku fa texee di dangeen ngay ci ay lëndëm yonte bi sallallahu alayhi wasallam nee na na ngeen wattandiku tooñ ndax tooñkat ay lëndëm lay doon yowmal xiyaam ay lëndëm lay doon yowmal yowmal xiyaam bokk na ci eh, eh, jeexiti tooñ it mooy ki tooñ yonte bi sallallahu alayhi wasallam nee kiñ tooñ man maa koy xulool yowmal xiyaam noonu ñu ko waxee woon kiñ tooñ man maa koy xulool yowmal xiyaam bu yowmal xiyaamee man maay nekk ab avocat boo xam ne maa koy layool ca ka ko tooñoon bokk na ci it mooy ak ñaanam kenn du ko delloo ku tooñ bu tàllalee ay loxoom bu defee ay pexem yépp ba ay pexem jeex mënut a delloo si àqam mu tàllal ay loxoom ñaan yàlla sunu borom tabaraka du ko delloo loxo yooyee sunu borom tabaraka taala du ko delloo loxo yooyee ittaqi daawat al mazlum fa innaha laysa baynaha wa bayna laahi xijaab am na benn ma boo xam ne dañ koy solo am sax ñu ne addis la mooy sunu borom tabaraka taala dana dimbali réew moo xam ne dafa maandu duñ tooñante duñ tooñ duñ tooñante suñu borom dana leen jàppale leen ba ñu avancé bu baax a baax a baax doonte na ay yéefar lañ waaye nee na réew moo xam ne dañuy tooñante ci seen diggante wala ña ña leen ilif di tooñ ñañ ilif wala ñiñ ilif di tooñ ñi leen ilif su nee na dana du dimbali réew moom du ko dimbali doonte na ay jullit lañ loolu bu ñu ko gisee nag da nga xam ne lu lu lu lu dëggu la ndax bu ñu gisee li ëpp ci réew jullit yi day mel ni ñoo gën a des gannaaw ci wàllu koom-koom ñoo gën a des gannaaw ci wàllu doole te dara warulu ko lu may tooñante gi ñuy tooñante ci sunu borom tooñante ci gi ñuy tooñante ci sunu sunu borom ña dul ay jullit nag la leen musal mooy ñoom buñ dee tooñ seen borom it waaye duñ tooñante ci seen diggante danañ maandu ci seen diggante ba kenn ku nekk ci war réew ma la am ci àq danañ la ko ba mu mat sëkk bokk ci ba ca mujj mooy tooñ sabab la ci yiy sabab rékki ak xéewal yàlla dana xéewal mbooloo ñuy tooñante ci seen diggante wala ñuy tooñ seen borom yàlla ci xéewal googee daal koy dindi ñu daal dëkk ci ab sànji di sonn guddi ak bëccëg taxamuñu daa leen di sonal kon yàlla nu yàlla musal te musal ñu ci xeeti tooñ yépp yi ci feeñ ak yi ci nëbbu te boole ñu te def ñu ñu nekk ni ñu maandu tey maandu suñu diggante noonu mu ko diglee ci alquran inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaai dil qurba wa yanha anil fahshai wal munkar wal baxi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa الحمد لله الذي أسرف في قلوب المؤمنين الحمد لله الذي أشرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين فأن شطت جوارحهم لطاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وصحابته أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن الدنيا وما فيها خيال وسراب وأن ما فوق التراب تراب fa qawmun usribat qulubuhum xubba dunya fa shugilu an tazawudi lil axira billadaati wal axyaar wa akafu ala talabiha wa jamciha ana annahaar وقوم ملئت قلوبهم بالمعارف والأنوار والأنوار والأسرار وفتحت منهم البصائر والأبصار فسمعوا قوله تعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فتوجهت هممهم إلى إدامة الاستغفار وتسبيحه سبحانه وحمده بالعشي والإبكار ولازموا بيوت الله في أرضه لقوله في حديثه القدسي inna buyuti fi ardi almasajid wa inna zuwaari fiha ummaaruha fa tuuba li abdin tatahara fi baytihi summa zaarani fi bayti fa xaqun ala almazuuri an yukrima zaaira الحمد لله لا إله إلا هو لا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إياه جل الله مولانا اختارنا سيدنا محمدا واصطفاه ووفاه منه ذو اختصاصه ما وفاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من تلاه وكل من والاه ما أقيمت الصلاة وقامت الأشياء بالله أما بعد فيا أيها الناس إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فهي أم الطاعات وسيد القربات لا تقبل قربة إلا بعد قبولها ولا ينظر للعبد في فريضة ولا نافلة إلا بعد تمامها بفصولها فأعظم بها من عبادة يناجي العبد فيها مولاه وناهيك بها من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه fa aqimuuha aanakum allahu wa iyaana fi azmaaniha almuayyana wa awqaatiha wa wafuuha xaqaha min al-i'tidaali wat-tumaaniina wa saxxihu aqdaha bil-ixlaasi bil-xushuuci بالإخلاص والخشوع والسكينة وفقنا الله وإياكم للطريقة المثلى وألهمنا جميعا لتدبر ما علينا من القرآن يتلى وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين

allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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 والآخرة خير وأبقى إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله حبنا لك الحمد الله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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله honest and uh,